Euh, Abdoulaye Wilane ñoom ñëpp nekk nag foofu mais Aliou Sow mais dañ leen a battre si seen propre bureau de vote. Cheikh euh, euh, ah, mais du gàcce nag du gàcce xam nga tax xam nga du gàcce. parce que ki ñuy ki ki ñuy àndal di Amadou Ba bureau de vote bureau de vote dañ ko faa duma. Mhm. Hmm? kon ñoom aussi bu ñu leen duma c'est continuité rek la ci ci mbir mi. candidat yëpp ah. waa candidat presque yëpp ah. waaw voilà loolu. voilà muy lu ñuy constaté ñëpp ayoba gis nga ko. c'est un pan euh, man li ma li ma ko tuddee mooy c'est un référendum en fait. Mhm. Euh, c'était pas une élection euh, référendum lañ demoon pour vraiment peuple bi choisir entre continuer ci li fi nekkoon wala vraiment def rupture. rupture jàll ci tourner page bi jàll ci leneen loolu la woon. donc boo xoolee ils étaient dix-neuf candidats. boo xoolee résultats yi ça c'est c'est un référendum ça tendance la oui ou non la woon. woon entre Bassirou Diomaye Faye et Ba ñeneen ci des ñëpp ils étaient peut euh, pour le pour le décor mais mm-hmm. bon euh, ñi nga xamante ni choisir nañ Bassirou Diomaye Faye mel na ni euh, ñooy ñooy parti bi gën a représentative euh, ci peuple bi te démb mm-hmm. wane nañ seen baat parce que ci suba si rek da koy sentir bi nit ñi xëddee ba pare mm-hmm. song bureau de vote dix heures laa fa dem mais dafa xatoon nit ñi dañuy grand foofu yëpp di voter tey muy et euh, puis les personnes de de de tous de muy mag ñi muy ndaw ñi muy jigéen ñi nga xamante ni heure yooyu da leen doon fekk ci kër yi. Mm-hmm. ñu nekk di di di préparer di togg ay añ ak yooyu mais ils sont mobilisés ñëw voter mm-hmm. euh, ils étaient vraiment da ngay sentir ni ils étaient vraiment déterminés mm-hmm. à tourner cette page là et cette page là a été très très très très lourde durant ces douze dernières années. Euh, Sénégalais yi souffrir nañ vraiment dund nañ fi ay choc yoo xamante ni mosuñu ko dund ñu jël fi ay doomu aadama yàq seen àdduna mhm. ñii ñu tëj leen kaso ci ay conditions extrêmement inhumaines yoo xamante ni mhm. euh, peut-être après dinañ ci ñëwaat bu régime bi ñëwaatee dinañ xoolaat justice bi et mhm. mais en tout cas les Sénégalais ont décidé et majoritairement à changer le régime et à tourner la page Macky Sall pour sanctionner ce régime absolument euh, de la sanction qui continue rek qui continue à mbàccum gerte léegi nag régime bi di ñëw. Mhm. bon il va certainement entamer des réformes très hardies. Surtout. Mhm. nag il aura besoin de l'Assemblée nationale. Mhm. bon juillet la seen mandat di jeex ils auront fait ans. ragal naa ne des kii pour ñu def ci élection day compliqué ci nawet bi. Mhm. donc dinañ defaat élection. Mhm. pour mu mën ko dissoudre quoi il faut deux ans deux ans mhm. juillet lay doon. donc certainement dinañ def élection après. nawet bi. après bon mu mu mën a am tous les leviers nécessaires nag pour abor aborder des réformes très hardies quoi. loolu euh, yi nekk à l'extérieur. ñu nekk Turquie ñoom ñu ñoom. gis nañu aussi am nañu yéene ju rëy ci Sénégal. léegi mhm. li des mhm. mooy ñu poser acte après li des suñu borom. Mhm. jàppale leen. ñi nekk ci diaspora bi ñoom tamit nee nañ dañ leen di fàtte lu bari nee nañ exemple Turquie ñii di Sénégalais dañuy sonn ngir am lii di titre de séjour te nee Turquie yaa ngi biir Sénégal di def seen réalisation